asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñu ñuy teewlu fii si eh, Dakar Buzz tey nag ñu ngi ñëw fii ci Ndiaye Thioker set si famille yu El Hadj Ousmane Diagne eh, di joueur ñaari tali bu wàññiku niki mercredi ñu denc ko eh, niki démb ci jeudi bi ca Yoff tey ci vendredi bi la ñu koy saraxal ñu ñëw seet si famille yam ngir ñu def témoignage si kii di El Hadj Ousmane Diagne kii ma nekk sama ndeyjoor frère la si moom la doore sëñ bi maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. Euh, tur bi naka la. man Malick Diagne. lan nga si El Hadj man magam la maay taaw si kër gi maay taaw. Euh, ñu leen di mastawu d' abord euh, ci xibaar bu nakari bi nga xamante ne ni moom moo tàbbi métti ñëpp ñuy de ñu koy delloo ci yàlla te di ko ñaanal rek mu yeggal leen ndawam ci aljana naka ngeen yëggee mbir mi. waaw sant yàlla dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla bu baax toog man mi ma fekkoon maa ngi liggéey. dama demoon liggéey nekkoon tournage woo ma téléphone sama benn xarit sax El Hadj Keita moo ma woo di ma ma jaale naan man booy Massa Baye ma ne ko Massa si lan mun a ma sarat bi man après noonu daal ma tiit ba raccroché téléphone bi bëgg a xool WhatsApp bëgg xool gisuma dara après si dama sama waa kër commencé woo téléphone mu nekk lu tiis nag mu nekk lu tiis trop trop ndax. du caagi ne sama rakk la rek du caagi ne sama rakk la de mais sama xarit la woon ku baax ku baax ku baax torop sax ku baax torop du ñu ñàkk suñu papa yàggul dara moom mu nekkoon xaritu papa bi xaritam torop sax billaahi après moom mu nekk ndaw yoonam commencé leer ma kontaan billaahi di ko tiitaroo di mooy fu ma taxaw ne diw sama rakk la après yàlla moom lu gën rek lay def baat sëñ Tuubaa lu gën kese lay def xëy na nag amaana lii moo gën ci moom te ñaanal suuf ayof ci kawam te cat bañ ko jiitu si bàmmeelam waaye yaayam ñaanal na ko ñun ñaanal nañ ko te xel dal na daal macha allah macha allah. bu nekkee xale ba tey El Hadj football rek la bëgg ñun kër gi ku si judd ñun ñëpp football waaye moom ndeysaan war sa mu ci am ba peese bi mu ci am ñun ñii ñëpp ba waaw jotoon sol may équipe nationale. mu nekkoon fierté la woon bokk ci kër gi parce que bi mu nekkee xale ba tey amaana jàng na de jàng na am na bac jàng na kër gi moom nu mu metti metti da ngay jàng quoi mais dafa mës a bëgg football yi mu nekkee xale ba tey kii mooy am ami mooy xaritam foo ko gis foo gisee El Hadj rek bul sori xoolal di nga gis Fallou foo gisee Fallou bul sori di nga gis El après mooy loolu noonu ko eh, sant rek ñu ngi sant bu baax daal. lan nekkoon bébétam ci wàllum football bu mu sóobu comme moroomam yi comme moroomam yi football tukki jouer équipe nationale teral ay waajuram taxawu famille am El Hadj genre je peux dire que fédérateur la woon il était là pour tout le monde El kenn xamul fan la dëkk El Hadj ñaari tari xandaalu gis ngeen ni mu mel nawetaan xeex yu méttee am moom faalewul lool sax El kenn xamul fu mu dëkk kenn xamul nag kusum na dëkk kenn xamul nag dem sa dëkk foo na gis El Hadj nekk nit ñëpp ñëpp boole ko bëggal seen bopp mooy loolu ko waaw. déedéet soxna amul soxna xale bu ndaw la woon soxna quoi moom moo ne taawu ay waajuram déedéet yi taaw maay taaw am nañu benn am naa sama beneen rakk mi ngi fi Canada ak après moom moo topp si moom moom nekkoon si moom am naa ay rakk yu jigéen am na benn rakk nga seede yàlla mais dafa nekkoon xale boo xam ne par exemple <laughs> man daf ma doon woo toog euh, mu woo booy la may wooyee du ma sax wax grand bi booy yow da ngay def ne quoi booy nekk quoi booy nii mooy loolu quoi nekkoon xale bu bu bu waaw. bu bu amoon jom bu ñu amoon yaakaar waaye xëy na yàlla jël na ko waaye yaakaar tasu man de jooy naa sama rakk ji de jooy naa sama rakk ji torop sax li ma jooy sama rakk jooy ma ko sax sama papa dama am lu ma metti mais démb dama taxaw almeere ma xool ma ne non kii champion la champion la quoi billaahi mooy loolu quoi xel daal la nag de barke alxuraan mooy loolu quoi billaahi sant rek ñu ngi sant bu baax sant bu baax rek. nga déggee mel na ni yéen ñaar da ngeen amoon complicité. sama waay la billaahi sama waay la quoi. tase quoi ñu tase teel ñaari tale. Euh, booy jox ma ma ne ko waaye yaa may jox mu ngi ànd ak Fallou ñu ngi jógee jour boobu championnat. mu ne ko rek laa waa sama yoon néew si jëndal ma banaana assa itti na sant barke sëñ Tuubaa sant bu baax barke sëñ Tuubaa billaay ñu sant yàlla bu baax nag billaay ndax xel dal na billaay tiitalu ma ko de billaay tiitalu ma ko benn yoon barke alxuraan après ñaan yàlla yàlla cat bañ ko jiitu ci bàmmeelam war sëñ Tuubaa ndax xel dal na de man tiitulu ma ko billaahi day yéeg ci àjjana yu gën ñaanal na ko ñun ay magam ñaanal lañ ko te billaahi yàlla na yàlla mottali yéene bi yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko malaaka yërmande teeru mooy loolu quoi muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah لا إله إلا الله aywa euh, su ma noppee ci grand frère am bi damay waxtaan ak euh, ki nga xamante ne moom laa toogal ni moom it nekk ku jege woon El Hadji Ousmane Diagne meilleur ami maanaam xaritu benn bakkanam ba dem sa ba ñaar ay jumeaux lañu boobu ba tey euh, mu ngi taxaw famille bi moom it macha allah dama koy dikk micro rek mu indi quelques kàddu témoignage donte yëkkati kàddu sa métti na dimb ba tey nanguwul a wax waaye tey dana jëm rek indi témoignage ci xaajam bi nga xamante ne Fallou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. di la mastaw d'abord. Euh, ñoo ko bokk Elhadj moom daanaka moom Sénégal Sénégal la naan moo ñàkk parce que internet bi et yi foo tourné rek yaa gis ku nekk nga koy dugal amaana ñu ko xamul sax ñu koy dugal donc loolu moom nit ku baax rek ko koy am waaw di ko ñaanal yàlla nag fee mu tëdd gënal ko fii mu juge te suuf oyof si kawam si baax. nga nekk euh, xarit intime am euh, ñu naan sax jumeau wam nga naka nga yëgee xibaar bu nakk loolu bi ma koy yëg daf ma fekk ma taxaw biñ ma ko biñ ma ko annoncé samay moo moo moo kii ma toog si suuf maa ngi nekkoon sama benn kër papa Ousmane moom mu perturbé xam nga pour moom mun koo gëm dama daw ba seen kër Medina fi muy nekk. ma fëgg fëgg fëgg ba sonn kenn tijjul ma wàcc toog si suuf il a fallu ma woo kii mu nekkaloon mu confirmer ko après boobu daal wax dëgg fa neex yàlla moom mënatuma woon daal wax dëgg fa neex yàlla toog naa buntu këram ay une heure de temps presque foo xam ne kenn fekkuma fa man kese toog di xalaat lu bari mais dañ naan dañuy faral di wax ni yàlla bu soxlaa jàmm bi day ñàkk te dañ ko koy sante bu baax nga koy sant bu baax. feebar bu gaaw la feebar bu gaaw mais xam nga rek nit moom kenn du leen wax mais ñun ñun ñu xam xam nañ te ñu ngi koy ñaanal. Mhm. na yàlla nangu ñaan euh, nee yéen ñaar bingu ak binga lañ leen doon wooyee lu waral woo nañu lu ne. woo nañu lu ne parce que si parents yi la woon. papam la woon ak sama papa ñu dund dund dund ba dee tàqali leen may dox du dox di dox di dox ba dajak moom sàmmante ak moom kóllëre ba ñu xamante ni suñu ñaari papa yi ñoo kii affaire bi gën a kii bëri naa ay xarit dëgg la moom bëri naa ay xarit mais dama bàyyiwoon ñëpp ndax moom bàyyiwoon lépp ndax moom parce que alxuraan mën naa ne tey jii ni fàllu bu soppeekoo Elaaja waaw parce que Fallou tërëri na woon dëgëroon na bopp mais te jii ni kooku ba mu duggee sama àdduna ba léegi daf may recadré waat di ma conseillé man moom lu mu mënoon man sax man mënu ma woon ci moom kon kooku nit ku baax rek ko ko mën billaahi dëgg na wax ne Sénégal ñàkk nañ ñàkk nañ waaye man tamit ñàkk naa de parce alxuraan mais di ko sante yàlla bu baax. Euh, lan nga ñu mën a indil ay seede si moom. bari na bari na benn rek laa leen wax. maa dégg ni ñi di wax naan buy dem di football si yaadama ak lii nii kooku mosul tàqali ko julli man jàng naa de sama jàng soriwul dëgg la mais man dafa ma naan jàngal julli buñ nekkaan regroupement hivernal ñoo doon bokk fi ñuy tëdd sangu sangu sax ñoo koy defandoo ma moom si benn douche bu ñu génnee di julli mu ne ma sëñ bi jiitul ma ne ko mukk si àdduna man du ma la jiite mukk man jiital rek man demay woowee sëñ bi rek mais jiital kon kooku xel mën na dal si moom te ragal woon fu mu jëm man dem bi moo ko tiimee si morgue bi laa xam ne kii missionnaire la woon fii man ba ba ba ñu yóbbee man mënuma gëm sama copain dem na barke Serigne Touba mais sant yàlla rek yàlla baax na. Mhm. lan gën a marqué ci moom. bari na parce que liñ dund la maam moom liñ dund la li ma marqué bari na li may fàttaliku rek mooy. benn jour dañ dem regroupement ñu war a génnee onze type bi moom ñu teg ko si banc bi kon tam man maaroon doon joué moom muy joué durat jour boobu man lañ joué loo droite ànd beneen booy mu joué gauche parce que alxuraan jour boobu li ma doon ñëg ci man moom xam na sama jikko biñ ñeggee ci sambaru mu ne ma xam naa la man ne ko booy jaru nga may waaxu te marché bi munoo wax wax wax ba du ma ko yàq parce que marché ñaari te loon xaw fàtte naa sax ak kàll mu woow ma ma ñëw ne ma booy meloon ni man maa ngi sa wet di football loo doon footballee côté bële gën ko football tey rayantal ak ndax man barke kon kooku nga xam ne kooku nitu nitu mënoon nañ ko classé mu nekk foofu di mer ñu teg ko si banc bi muy fu ñu mais defu ko mu woow ma ñëw apaisé ma wax man ma mun a dem jouer sama match normal kon kooku daal wax dëgg fa neex yàlla man aw ma fayam aw ma fayam lenn nag fi mu féetu woon famem man mission boobu noonu moom naxel naxel dal ci man dinaa xoo matala ba mu mat sëk sëk lenn rek la ñuy ñaan yàlla cat bañ ñu jiitu mais fii ak ñu ngi am wér gudd fan tal ak fekkee billaahi wallaahi taalaay dinaa jàpp famem ak samay fukki loxo parce que magam bi moom xam na xamoon na ñëpp xam nañ sama diggante ak El billaahi mais yàlla baax nañ ko ñaanal rek cat bañ ko jiitu si bàmmeelam bu weesoo loolu moom a dëgg fa neex yàlla am nañ yaakaar si El Hadj. yan kàddu ngeen di mujjee gisante yéen ñaar. El moom mun naa ne voyage moo ñu tàkkale woon parce que dama demoon tournoi Kosovo Afrique du Sud moom mu demoon Nigéria ak mini football bi noonu léegi par la suite moom mu ñibbisi tabaski si man ma tabaskee foofu ma ne ko booy tabaski daaw de maa ngi yow ñoo ànd ngay yóbbu yàpp yi sa kër papa. ñu jaar sama gaale HLM mooy may woo appel vidéo tabaski dem na suñu kër fa la añee dem kër papam kasoor ñibbi si jaar suñu kër HLM dafa demoon ba xam sama famille ñëpp ñëpp ñëpp fu sama famille fu mu nekk rek élage mi ngi fa léegi bi ma ñibbisee vendredi soir laa ñibbisi samedi ma ne damay xëy dem entraînement ñaatali balaa maa yeew rek mu woo ma ne ma booy sonn naa kaay yóbbu ma hôpital ma ne ko booy yow boo waxee loolu mooy mooy loolu de xaaral mu ñëw ma dem këram maintenant jël ko yóbbu ko hôpital Elisabeth xam nga placé ko yooyu noonu léegi la temps may tardé ma woo sama benn copain bàyyi ko ak moom dem entraînement le temps may ñibbi si ñu ne ma génn na ma koy woo téléphone am di sonné après ci lañ ma ne da kii yow mi dafa amoon garab bu koy nelawloo moo tax léegi ma bàyyi ba soir ma dem këram ñu toog falaa laa nekk ba ay 3 heures du matin ñuy waxtaan moom moo ma ubbi sax ma ñibbi. léegi dimanche ma xëy di ko woo xam nga téléphone di sonné sonné ma ne konte garab bi la baa ma baa ko noppalu lundi may woo meeram décorosé ma ne ko waaw ah, urée eh, lu xew mbaa jàmm mu ne ah, ba ñu yóbbu ko benn clinique ma ne ko ah loolu moom doy na waar de ba mardi bi ci soog a déggante moom téléphone ma ne ko waaw ah, copain na xamu lekk mu ne waaw fils maa lekk bu baax ma ne ko waaw ça se voit parce que ni ngay waxee nii mooy yaa lekk te te konte yaa ngi lekk rek tane nga bu baax sant yàlla boobu meeram mi ngi doon bañ ma ñëw opital xam nga xam naa dafa xam ni ma toll woon ci élage léegi man si mercredi bi laa fippu ma ne nu ma def naa mën a dem géejawaay man su ma demee ba géejawaay sax damay woo meeram ne ko maa biir géejawaay xanaa di ma wax clinique bi léegi ma ñëw après si laa jot coup de filam coup de filu ma noonu lañ ma ko tàggee bu doon lu ma tiis torop torop torop yéen nari fa digérer ça billaay wallaay guddi yëpp damay am problème mu nelaw parce que fu ma toll woon la. nañ ñu euh, jël euh, ñeneen ñi nga xamante ne ni ay euh, waajur lañ ci élage mu wàññeeku waajuram bu jigéen boole ñoo ko ñoom ngir ñu wax rek ci kàddoom di ñuy ma toogal damay njëkkee ci kii sama wet maam booy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay doom. tur bi nag. Adja Maymuna Giro. lan nga ci élage. man élage tantam laa ci benn wàll maamam laa ci benn wàll. Mhm. Kiwaar gi cousin yam moo woote hôpital doomu bàjjinam woo bàjjinam di ko laaj ana elage mu ne ko léegi léegi la jeexal suñu kër gaa ngi ni en face mu daw di yuux du ko fi baxe mu daw dem suñu kër mu woo ma woo paa bi ne ko ñëw leen ngeen dem kër ga elage gaañu na elage gaañu na sama doom bi ne yaayu El Hadj ngay wala wala maamu El Hadj mu ne déedéet El Hadj ci boppam kër gi yëpp yuuxu ñemewuñu ñëw fii yàggu ñu dégg kër gi tam fii ñëpp di yuuxu koñ bi kenn waxul sa morom kenn wax ku nekk yuuxu moo nga ci xam ngay laajte lan moo xew lan moo xew parce que kenn yegul feebaram kenn yëgul feebaram gaañu na rek lañ ci am. ban seede nga may indil ci moom. seede bi may indil ci moom ak maa ko xam parce que yaayam xam naa ko depuis quatre ans yaayam mi ngi am quatre ans maamam bu jur yaayam maamam bu jigéen a ah, maamam bu góor ñooñu yar ñoo ma fii laa màggee si kër gi koo xam yaayam depuis quatre ans ba ci moom xale bu baax bu jullite saakam bi muy boot sejaadam ak jàllaabam mi ngi si biir fu ko waxtu fekk mu jàpp lal julli jullite jàkk bi maamam bu góor moo ko fi samp mbaar la woon def tànt ko mbaar noonu kii jabaru Diop si la moom moo toj defaraat ko def lépp waaye tiitarowu ko de musul wax ne Diop si mooy sama jikar file ku mun yar njaboot yaayam ñoom yaayam yi lañu jël ak nijaayam musuma leen xamal dara lu bon bési bi muy nekk hôpital maa ngi tooñ kii ma ne ko yow jëkkër bu ñàkk ful la yow joxuloo ma xar joxuloo ma mbubu mu ne dinaa la indil mbubu parce que sama borom kër mooy seen mag seen papa sama borom kër moom la yónnee xaalis mu jëndal ko kër gi mu ne fii ngay jaakaarloo ak man yow yaay sama taaw moo tax mag lañ ko jàppee yaayam doom la ko jàppee fii la ñu yaroo fii la ñu xam kër gi fii moo tax ma ne ko yow indiloo mbubu indil wala xar mu ne ma naa la indil mbubu loolu leen di la mardi mercredi hélas jóge fii xale yëpp dox nañu sama caat bi nee ne gomuma ko hélas deewul trois heures du matin la yeewu ñëw fog ma mu ne ma yaay gëm naa ne ndek hélas dee na ma ne ko yow bul dof hélas bi mu deewul kenn waxul mu ne hélas dañ ko yóbbu nii ma ne ko abu dalal mu ne ma ne di dal de loo xam ne dal na yonente bi ma ñun ñii yonente bi ana njabootam doomam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam bésu la daanu mu def asalaamaaleykum mu def asalaamaaleykum Jibril wàcc waaye saalitul bu ñu saalit elage yàlla moo ñu ko joxoon yàlla joxoon na ko dem na. xale bu bu buggoon yaayam fekkee léppam ak ñun ñi ñëpp hélas bi soo leen soo leen daje moo lay njëkk a nuyu te day ree ba pare man comme dégguma français bu ma gisee ma ne ko hélas ça va oyee le boulot dee mu naan ah, gogo waaw léegi léegi jàmbaar nga de dégg nga léegi français image yooyu moo ne dem tey ci tey boobu léegi mënu ma ñëw fii tey ci suba dama yeew may miir su ma gëmmee sama bot moom laay gis. ma gomme sama bos moom laay gis day taxaw ci terrasse bi ma nekk fële sama balcon tànk gisuma du dem su ma gisee mu tàllal ñaari loxo yu kiin ma tooñ ko ci français mu def ma nii ndekete yoo xale bi addina yëpp mbamba élage élage élage ndeke fii la yëpp waaye loolu moo neex yàlla li nga xam ne neex na yàlla neex na nu de waaye yàlla ku duma nga jooy yàlla du moroom kenn su la rek nga jooy ma yaayam def ma ne ko ñëw nga ñëwal wax ñii doy doy nga ma kaay wax ñoom hélas mun na sama sit ndax samay sit ñoo ko mag waaye yàlla fii la ko yemale waaw ñaanuñu yàlla na am loo xam ne dinañ fàtte hélas ñaanuñu ko yàlla de yàlla na fi yem yaayam yàlla na ko yàlla jox xolu muñ ni mu joxe woon yonante bi sallallahu alayhi wa ngi sant yàlla di julli ci yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam te xale yi dañoo am seen ñaar ñaanu way jur gis nga kër gi macha allah fa tabarakallah dañ ko toj defaraat ko defar defar jour boobu ñëw naa fi maire bi nee na mu ne ma woo naa seen papa ma ne alaaji sa kër naka na kër tubaab seen yaay mi ngi tëdd am na téeméeru ak presque xam nga yàlla lu ko soxla ku mu soxla moom lay yóbbu yàlla du laajte yàlla du laaj kenn yàlla ndax la ñuy def abada kooku du yàlla kon nag gëm nañ ko sant nañ ko julli nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw sangu sangay ngeen ci mbindeef maam Alaaji Malik radi allahu taala anhu maam Cheikh Omar Fuuti radi allahu anhu maam Sëriñ Tuuba radi allahu anhu yu baax ñi ñuy lim fii yëpp kenn desu fi ñun ñi xamuñu kañ la xamuñu naka la xamuñu nan la nañ ñaan yàlla yal nañ yàlla musal ci dee bu ñaaw moom rek la ñu ñaan yàlla waaye li ci def du fi des waaye kii na xool la ci biir mu ngi ci xolu ñëpp lépp lu dee ñu suul ko ci suuf doom bu deewee te yaayam dund dañ koy suul ci biiru yaayam mu ngi ci biiru yaayam kon dañu ñaanal yaayam yàlla ginnaawam yàlla mu nga xam ne mooy remplacer lépp mooy remplacer ñëpp yal na ko yàlla remplacer El Hadj fi ko El Hadj féete woon yal na ko yàlla féete foofu bu ko yàlla féete foofu du torox file lu mu dund ci àddina yàlla bu ko yàlla toroxal ni dund na fi torox ba ba bëgg a dee sax deewul yal na ko yàlla teral teral na ay waajuram teral na ay magam man di teral na jox na ma cër sama borom kër gi noonu ay magam yi noonu file diñ ko magam yi bu ma toogoon fii di ko wax suba ba gannaaw suba du jeex kon na allahumma salli ala sayyidina muhammadin salli wa alihi wa sahbihi wa sallam jërëjëf voilà ba tey rek euh, ci témoignage yi ci kii di El Hadji Ousmane Diagne euh, ñu ngi fii ci këram ma toogaat ak keneen ka nga xamante ne mën na indi ay services yi moom di madame Diop si dama koy bàyyi mu nuyoo euh, présenté wu ñu foofu si waxtaan bi moom maa ngi lay maa ngi lay fay. tur bi nag. man la jóob Diop Aminata Diané euh, mag si Filimatu Diané. yaay El Hadj. Mhm. ñu lay mastaw ci xibaar bu nakkari bi naka ngeen ko yëg. ah xaw ma sa lan laa leen di wax parce que El dafa feebaroon feebar bu ndaw rek dafa voyagé woon ñëw man daal dama ñëw di fii euh, lundi lundi laa ñëw lundi si ngoon di seet suma yaay. parce que yaay mooy ma caatu yaay ñu ne ma Fidé dafa génn ma ne ko Fidé fu mu dem ñu ne dafa dem gunge El Hadj hôpital ñëwagul après ma génn dem le lendemain suñu benn doom bu mag su suma doom bu mag bu jigéen moom tamit jëkkër ji gaañu man ma xëy dem foofu ñu jóge foofu ngoon ma woo yaay ji fekk woo naa ko suba mu ne ma mu ngi tane daal kii bu ndaw rek la ak yooy léegi euh, ma jóge si dëj bi ma woote ñu ne ma 19h kenn du dugg foofu guddi bi yëpp nelaw ma may xalaat El rek ma ne ko su ma xëyee fajar il faut ma ñëw moo fekk ma wowoon sama chauffeur doom ma ne ko soo xëyee nga ñëw yóbbu ma ma dem seeti El Hadj comme paa bi fii la ay comme ça après ma ñëw defar añ ma téléphoné téléphone kooku jëlul téléphone ma mer ma woo suma doom bu jigéen bi ma ne ko yow ñëwal nga il faut ma gis aj kii El Hadj tey. kooku ne ma waa comme noonu la dama bëggoon dem banque xaaral balaa may dem kon ma ñëw jël si la yóbbu la après man ma dem ma ñëw jël ma ñu dem ba ñu demee fekk El Hadj ak gis El dama ñëw rek mu xool ma def nii bët yi ak yooyu ma xool rek ma ne ko che fii de El Hadj ma ko gisee nii neexuma mu ne ma déedéet xam nga kii lu mu dañu ne ñu ne neuropali la yoree ak yooyu dañ koy defar ay kii rek man ma commencé jooy ma commencé jooy te xale bi ndeysaan mu ngi dem ñu ngi toog di koy xool xamoon ñu si dara ñu jékki ji jël benn affaire daf ko si dënn ne ko bàyyi li nga koy frotté si dënn bi yow tamit mu ne ma déedéet lii frotté bi daf ko bëgg chaque fois ba pare moom lay def si kii ñu toog ñu toog mu ñuy xool yaay ji di koy xool ñu koy xool rek ne file bàyyi li xool xale bi ni nga koy fixe ni neexuma ma ne ma ne yetu génnal wàccal nga dem wàccal si suuf mu wàccal su man ma toog ak filet ak élage ñu toog toog toog rek ma ne filet nañ woo médecin ma woo sama jëkkër ma ko nañu changé élage nu ma ko gisee nii baaxul élage daal xaw ma nu ma koy waxee daal élage xam naa ni yàlla moo ko indi mission la def daal dafa ñëwoon def mission pour dem dem bi daf ñu bett bett nañu bett nañu bett na ko bett nañu mais xam nga yàlla lu mu tudd si nit rek kenn mënu si dara yàlla moo ñu ko jox yàlla moo ko jël parce que man aw ma doom bu góor moom moo doon suma doom bu góor ay ñeent doom yi jigéen laa moo doon seen suma doom daal daf ma féetale woon boppam moom si boppam fu ma gis rek mu ne ma parfum fu ma gis rek mu ne ma dem parfum suma doom yi bëgg ko même suma sët xaw ma woon sax ni que suma xaritu sët yi dafa daan ànd ak suma xarit suma sët yi ay xale yu ndaw ay concert soo amee yooyu moo leen di dem jël di ànd ak ñoom El nekk si famille bi rassembleur mooy dajale ñëpp El Hadj daal mënuñu la mënuñu la wax suñu doom yi nekk à l'étranger ñëpp ñoom mënuñu toog mënuñu topp parce que dañu ne du dëgg parce que man même médecin bi sax dama ko nee woon ma ne ko yow dama lay porte plainte am na li ngeen ko def parce que ba tey mënu ko gëm mënu ma ko gëm parce que dafa gaaw daal dafa gaaw ba nga xam ne xaw ma xaw ma daal dem naa boo suma jëkk suma jëkk wax médecin bi médecin bi ne ko déedéet ñu ngi koy faj amul benn ki neuropalu la am man daal affaire bi daal dafa ma bett ba nga xam ne daal dara musuma bettee nii dara musuma metti nii ñu gis nañu genre dee bu nekk mais bu élage mi moom mun munuñu ko déjà xoolal suñu koñ bi fii ñaar cokkeer rëbës magasin yëpp tëj démb ndax élage nga war a xam ne nag te ñun saaba ñu yore si biir kër gi xamuñu ko élage su ñëwee kër gi ku mer da ngay reetaan élage koñ bi paa yi mag ñi ñëpp lay xalool ñëpp lay bëreel keroo rek ba mu ñëwee dajeeg moom fii benn ja waa ji benn paa bu màgget buy jaay tàng naa ni mu poñe waa ji di koy boxe ma ne ko ay eh, El Hadj gars yi ne ma bàyyi leen ko ñi ñooy ay moroomam El kenn mënu la wax man dama ne saaba la yàlla daf ko indi mu def benn mission lañ ko lañ mission lañ ko jox daal pour mu ñëw def ko yéen tamit ñu ngi leen di masawu yéen tamit ñu baax ngeen parce que El Hadj mu deewee ba léegi. kenn di remercier Dakar yëpp wax dëgg yàlla ñu xam El Hadj ñu ko xamul ñëpp ñoo ñu ñëw massaw ñëpp ñoo ñuy massaw léegi nag ñun li ñuy ñaan yàlla ñu ngi leen di ñaanal ñu ñaanal ko ma man xam naa ne yàlla na ko yàlla xaree àjjana waaw si barke Seydina Mohamed waaw yéen tamit ñu ngi leen di remercier wax dëgg yàlla depuis affaire bi am ba léegi yéen tamit toogu leen taxaw leen yéen ngi fi yéen ñëpp a ñëw gis nañu seen taxawaay yéen yëpp solidarité bii moo war a am si àdduna bi yëpp parce que li ñu gis nii si El moom man daf may yéem ñun duñu jooy duñ ko jooy parce que même suñu buggee jooy dañuy ne non kii waruñu ko jooy parce que dafa nekk xale boo xam ne papaam gaañu na fii El Hadj lu mu am papa ji amul sa moitié te papa ji tamit ku baax comme papaam papaam ku mu jis nit mu yëngal la fu mu toog fu mu nekk lu nekk fii papa ji nekk fii si kër gi moo doon sunu sunu góoru kër El Hadj ñëw tànn papa ji xale bu tuuti te El am na mag bu góor mais El Hadj dafa mel ni mooy taaw bu góor si taaw góor si koñ bi koñ ñëpp la naqari ñëpp ñëpp ñëpp Dakar sa laa ko mënoo parce que man am na ñoo xam ne dañ may woo xaw ma leen sax am na xale yoo xam ne dañ dañ may envoyé message damay jaaxle damay nii mais El Hadj fan fan la xam ñii ay ñoo xam ne soo leen gisee démb lu ñu doon jooyee fii man dama ne man ko ñii El Hadj kañ la xam ñii ñan la xam moo tax da am nit. nga nekk ak moom doo xam lan la foo ko fekk El Hadj mu ngi julli vendredi bu nekk El Hadj mu ngi julli léeg-léeg man damay wax dara su ma amee problème rek moo woo ko ma ne ko man daal lii ak mun mu ne ma non tata bàyyi yooyu xam nga looy def soo jógee da ngay jàpp julli rek ñaan julli ñaan rek loolu mooy non El Hadj dafa nekk doom boo xam ne mënuma la ko wax daal mënuma leen ko wax mais daal ñaanal ko yàlla daal fu mu nekk. mu eggali ndawam foofu te xam naa ni yàlla dina ko yërëm parce que El Hadj ku baax la mënuñu leen wax daal El nu mu mel si nii mënu kenn mënu ko wax ku wax men borom magasin mais foo tourné dañuy ne El Hadj man dama ba léegi damay ne El Hadj de léegi damay ne El Hadj de yow yaayam tam ñii ñaanal yaayam mu gën a am ko ñu fo xolu di koy ñaanal di ñaanal ay rakkam ak magam góor tamit. boo leen jullit yëpp waaw euh, maa ngi toog nii ak euh, papa ci El Hadji Ousmane Diagne euh, frère papaam la moom nag dañ koy nuyu ba ko mu nuyoon teg ñu am rek lu ñu ko laaj mu indi ñu si ay leeral si benn information boo xamante ne ni mi ngi daw ci réseaux sociaux yi papa maa ngi leen waaw jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant waaw maay Ousseynou Babacar Diallo Diagne. lañ maay jumeau yi topp ci papam ñu bokk benn pap maa fa ajuma jaañ ñooy représenté ñun ñooy actuellement seen responsable ñun ñooy seen pap donc euh, ñoo leen taxaw partout ñoo leen di ñaanal ñoo leen di takkal ñoo leen di ngénte waaw gannaaw ba ñu sante seen yaay bi nga xam ne am na ci taxawaay ak seen tante seen tante. dama lay wax rek nga indil ma seede yu ndaw ci Ela. bon suñu doom la defe naa li nit ñi wax ci moom ñun mënatuñu wax lu ko raw mais ñun la gën a jege ñun ñi ay waajuram dafa mel ni suñu moroom la fu mu nekk kenn du xippi kenn du mer du saaga julli lañ ko xamee ak ah, jaamu yàlla ak ah, bëgg ñëpp am jàmm ku stressé wu ma gis El sa stress daj na waaw muy xare bu baax bu ñuy continuer di ñaanal incha allah. loolu leer na donc euh, dama lay laaj de benn leeral ci xibaar bi nga xamante ne nii aussi mi ngi wër yéen a ngi ko jot léegi fii euh, ñu nekk nii euh, ñuy naan que ni Covid moom moo ko yóbbu mooy mbas mi yan leeral ngeen ñu siy indi. waaw defe naa ni su ma su waxee presse bi en général damay tooñ. am na ci ñoo xam ne quand même balaa ñuy bind wala ñuy wax dañu war a bindalu leen leer waaw surtout ñu nekk ci réseaux sociaux yi euh, bëgg a jaay sa information warul tax nga wax loo xam ne nekkul wala nga bind loo xam ne nekkul mbas gi gaa feebar la feebar la boo xam ne kenn waru ko làq ndax boo ko làqee mu toroxal la toroxal say mbokk mais yàlla xam na ni du mbas moo ko yóbbu waaw Noropaly moo ko yóbbu man maa jëli koor bi maa ko indi ñaay cokkeer maa yóbbu denc ko donc suñu waxee que ni mbas bi moo ko yóbbu dañuy tooñ d'autant plus que day mel ni ñun dañu laax ensuite ñu ne ñun dañ ko denc en catimini donc ñun dañ ko laax loolu mooy li nga xam ne moo gën a metti famille bi donc ci turu famille bi yëpp ñu ngi démenti ni que loolu amul waaw jógee na football ñëw na tabaski na ak famille bi problème boobu metti la wax ñu yóbbu ko clinique ñu mu nee clinique dañ gis que ni neuropali la am neuropali boobu moo ko yóbbu